mbokk internet yi ñu ngi dellu di leen nuy di leen dalal jàmm ñu ngi seetaan ci seen site officiel senegold point com ak suñu yenn plateforme yi Facebook Twitter Instagram ak ci YouTube bi tey ñu ngi am benn gan ci entretien bi ñu am euh, muy Amina Fall deuxième adjointe au maire Ouakam nekk tamit euh, secrétaire élu à la ville de Dakar bokk ci Dakar émergent ci mouvance présidentielle loolu bu ñu ko déggee moom mooy APR wala Benno Bokk Yaakaar Amina maa ngi lay nuyu ñu bàyyi la mu ko internet yi. maa ngi lay fay euh, Pape Maguette di nuyu sénégalais yi ñuy setaan moo xam ci biir réew mi la wala ci bitim réew di mag ndaw góor ak jigéen di am mbégte ñëw ngeen dalal ma fii ci Sénégal. Mm-hmm. alors bu ñu la nuyoo ba noppi li ñuy njëkk waxtaan waxtaanee bokk na ci benn point boo xamante ni mooy li ñuy tuddee luy ay di jàmbat mooy jàmbat Sénégal mooy actualité. lu jëm projet de loi bi ñu doon voté vendredi bi ñu passé ci assemblée nationale mu nekk projet de loi boo xamante ni interprétation yi bëri na ci affaire terrorisme affaire piraterie euh, arrangé wul beneen côté bi di opposition bi waaye mu mel ni kii projet de loi boo xam ni opposition bi li ñu wax mooy avantage yu euh, Benno Bokk Yaakaar wala bokk mouvance présidentielle bi noo jàngatee premièrement ci euh, muy projet de loi boobu ñu voté. waaw Pape Maguette euh, dafa nekk lu am solo ndax tey soo dégloo projet de loi bi opposition wax nga déglu ñi nekk ci mouvance présidentielle bi wax day mel ni ñaari loi la yu bokkul mais li nag du fi guléet opposition bi jamono ji je pense que benn arme la ñu am di ko doxee te arme boobu mooy di wax loo xamante ni pour jaxase sénégalais yi di wax loo xamante ni pour lëndëmal boppu sénégalais yi te loolu aussi ñun ñi nga xam te ne ñoo nekk ci mouvance bi ñoo ci war a farlu bu baax war a leeral li nga xamante ni mooy xew ci Sénégal ba kenn bañ a leen dugal ci loo xamante ni du dëgg mais dama dama dama dama dama boo dégloo tey débat yi ci am da ngay mel ni c'est le jour même bi coow yi di am ak xeex bi lañu ñu doogay gis projet de loi bi te projet de loi bi jaar na commission mosoo dégg kenn koo xam te génn na wax ci man je pense que ni li indi riir bi yépp mooy keroog le 23 juin mobilisation bi nga xam ne mouvance présidentielle def na ko ci place de la nation moo tax ñu xam ni sénégalais yi nga xam ne ñoo faloon le président Macky Sall ñu ngi continuer di ànd ak le président Macky Sall ba tey looloo tax ñu tiit ci élection yi ñu jëm ñu ne nag nañu naxasal xelu sénégalais yi nañu jaxase sénégale yi ba nga xam ne élection su amaatee Euh, sénégal yi duñu sawar a génn dem voté ji may wax tamit ni dara su beesee rek gan gi ci kër gi moo ko fi indi xam Sénégal yàgg nañ def politique opposition yàgg na am boo seetee tey maître Abdoulaye Wade ñu ngi koy nuyu def na 26 ans d' opposition mais lii fi xew mosu fay xew Macky ak m bi muy ñëw au pouvoir marche bu nekk am na fi lu nekk am na fi mais lii fi xew. mosu fee xew déclaration yu mag yu rëy yi fi xew mosu fee xew donc su fekkee nag euh, yow ajoo dara waroo bañ ku teen man dama jàpp ni dëkk buñ koy defar dañ ko war a defar ci ay texte ci ay loi yoo xamante ni dafay leer dafay nekk dëgërlaayu ñëpp. Euh, dafa dafa làkk wàllum politique pour nasaxal opposition. Euh, comme ni ñu waxee rek euh, comme président li mu waxoon lii fi amoon dootu fi amaat est-ce que du ay arme la indi lu jëm ci projet de loi boobu. xam nga damay déglu parfois su may déglu télé damay déglu parfois yenn journalistes yi mm-hmm. wala ñenn ñi nga xam dañ ñu farewuñu fenn mm-hmm. dañ naan li fi xewoon ci mois de mars mm-hmm. dañ ci war a def jàngat loolu la ñuy wax jàngat boo gis nag mooy indi lu nekk est-ce que yow tey jàpp nga ne normal na benn nit jóg ni combat mortel ni mortel combat ni Sénégalais jóg leen. ñu dem rayante ji parce que mortel combat foo ko déggee mooy na nit ñi dee ñu dem lu mat fukki nit ak ñeent ñàkk ci seen bakkan loolu dafa rëy loolu dafa tiis parce que benn jeune bu dee loolu génération ay génération génération nga éliminé yow nga jóg ni mortel combat est-ce que Sénégal tey dañ ko war a bàyyi mu nekk dëkk boo xam te ku jóg woo nit ñu leen neex ay mortel combat est-ce ay nañ leen économie dëkk bi man damay gis ay notion yoo xam te ni ak ay termes yoo xam te ni ñoom dañ koy faxal di utiliser léegi damay tiit parce que tey nit sa ambition personnelle wala sa bëgg-bëgg wala sa yàkkamti jiite wala sa bëgg jiite rek warul jar nga jël tout ton peuple mettre leen en danger man parfois su ma dégloo discours yi damay tiit et parfois je me demande Ousmane Sonko c'est quoi son projet au fait parce que lii xew fi yëpp ah moo ko fi indi M23 amoon na fi lii amu fi Abdoulaye Wade pendant ses 26 ans d'opposition wax naa la ko lii amu fi kon tey lii mu bëgg a indi man damay laaj lan lañ ko dikki suuf. walla kan moo nekk li mu bëgg lenn la. Euh, wàcce président Macky Sall nekk président parce que nee euh, li ñu wax système bi nii nguur di doxee nii réew mi di doxee neexu ko neexul ñenn ci askan bi. man li mu bëgg nangul naa ko ko parce ku nekk. war nga mën a am sa bëgg-bëgg ku nekk war nga mën a am sa yéene mais loo gis fondement bi dafa am solo euh, dem ci pouvoir Abdoulaye Wade ay tànn du ma dem ci pouvoir di jaar ci kaw néew loolu nit ku nekk homme politique bu ne war nga ko bañal sa bopp parce que dafay rester dans l'histoire du pays aujourd'hui jusqu'à présent ba fi ñu toll nii Ousmane Sonko est l'opposant le plus sanguinaire xam nga dafay wax parfois ni le président Macky est le président le plus impopulaire xam nga loolu ça ne tey jii le président Macky Sall mooy nekk le président de l'Union africaine à partir de 2022 xam nga kooku tey soo taxawee taxaw am fitu taxaw ak sénégalais ni que c'est le président le plus impopulaire te tey jii leadership am dépassé Sénégal dem ba si Union africaine xam ay wax yu dul dëgg la mais tey li wér te wóor mooy ce qui peut rentrer dans l'histoire du Sénégal mooy jusqu'à présent Ousmane sonk reste l'opposant le plus sanguinaire. sanguinaire diisul. sanguinaire du tout. diisul. diisul ci kàllaama tubaab. le plus sanguinaire parce que ci benn diir bu gàtt woote bi mu woote wootee combat mortel loolu dafa fort man bi ma ko déggee dama tiit parce que je me dis ni nit ki surtout ci loo xam te ne c'est une affaire vraiment privée ay ay ay ndaw. ay ndaw ñàkk ci seen bakkan te ndaw yi ñàkk seen bakkan après ngay laajte pour xam seen kër yi pour dem jaale ji leen c'est-à-dire du ndaw boo xamante ni yi ñi seen deret tuuru duy ndaw boo xamante ni da ngeen di bokk deret wala dañ lay jege sa à dire tu te protèges tu ton entourage mais da ngay jël exposé ay jeunes ay xale ndaw et je profite de cette occasion pour lancer un appel à la jeunesse man li ma gëm mooy ku nekk am nga droit am ambition mais li wérte wóor mooy Sénégal fii mag ñi ñaan nañ fi kilifa yi tàggat nañ ko aar nañ ko yiir nañ ko ba nga xamante ni jàpp nañ ni jàmm rek moo fi am ku fi nar a indi lu dul jàmm foog naa ne di nga puus jàmm ñëw sax ci réew mi. donc ndaw ñi ñoo war a xam seen bopp xam ne élection mooy changer régime du xeex du reyante du jamante. boo leen déggee ñuy wax day mel ni bu ñuy fal président Macky wala bu ñuy fay député yi dañuy dem ba Zimbabwe def fa élection après ñëw imposé non mais c'est des sénégalais démocratie mi ngi commencé ci nangul sa yeneen moroomu sénégalais ki ñu tànn sénégalais en majorité ñoo tànn le président Macky Sall sénégalais en majorité ñoo ko joxaat le pouvoir euh, législatif ñoo jëlaat ko jox ko en majorité. kon tey ji tu peux pas être un député du plus fort reste nga ñëw ni yow sa député dagan na yow benn député boobu li nga bëgg moo war am mais majorité député yi Sénégal tànn du ñu ay député niñ leen fale baaxul ci liste diw la ñu dugg ci liste mais quand même il faut qu'on se respecte. voilà bu ñu jugee ci ci point boobu noonu ñu dem euh, ci beneen point mu soxal actualité départementale mu jëm ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllu local yi ñuy dëgmal alors local yi euh, pousse nañ ko candidature yi am na ñuy. Euh, teg seen samp seen dënd am na ñoo xamante ni ñu ngi koy laam-laame euh, tey ci ndakaaru coow li bëri na ak yeneen i diwaan yoo xamante ni coow laa ngi si nii lañ kii du candidat nangam sangam ñenn ñi sax dañuy làkkatu actuellement euh, te lu jëm ci wàllu boobu noonu xeex bi mooy ci seen côté mooy ndakaaru ngeen moom ko loo xam ne moo leen të huit moom leen ci dara ba bëgg sax éliminer li nga xam ne moom mooy ville yi suppression des villes non man euh, suppression de ville hmm. dafa nekkoon loo xam ne man dama ci d'accord parce que soo xoolee ville ni ñuy doxalee dañuy jël budget Wakaam jël budget Gueule Tapée jël budget Médina jël dajale ba muy 19 commune parce que ville amul territoire day obligé dem ci commune yi pour am fa budget donc budget boobu tey su ko ville tëyee daal di ci liggéey Dakar Plateau kese ñeneen ñi dañuy perte est-ce que xam nga donc je préfère man dama ne bokkoon ci ñu xalaat ni bu ñu tasee commune bu nekk. di gérer li ville waroon jël fa commune bi di ko jël di ko liggéeyal boppam ñuy liggéey fii liggéey fii liggéey fii liggéey fii day gën a gaaw mais tey ville su amee benn équipe équipe boobu mënul en même temps muy liggéey Wakaam liggéey Ngor liggéey fii sa à dafay metti ci ñoom donc loolu tasoon ko rek la pour émergence bi ñu yéene Dakar gën a gaaw. loolu pour di système boo xamante ni euh, moom yooyu rawatina Dakar boo xamante ni yéen non mais Dakar depuis. Euh, ah, sont les techniques politiques élection yi fi mujjee am yépp le président Macky mooy gagné Dakar. dakaaru Ndiaye ji. Dakaru présidentielle yi le président Macky Sall moo ko gagné. Ah, ak mouvance présidentielle ah wax na ville de Dakar 2014 la woon ci local yi te boo seetloo tasaaroo bi nga xam ni euh, candidats yi tasaaroo nañ ko bokk nañ si lu ko joué man mi di waxanteeg yow 2014. doonu ma woon soutenir le président Macky Sall mais tey maa ngi soutenir le président Macky Sall ak ñeneen ak ñeneen ñu mel ni man ak ñoo xam ne sax ay maire lañu kon tey ji loolu yëpp dafay nekk loo xam te ne c'est un plus boo xam te mën nañ ko yokk ci li nga xam te moom mooy euh, nit yi xam te ne le président Macky Sall am na ko au niveau de dakaar te man sama gëm-gëm mooy suñu wee liggéey le président Macky Sall dafay gagner Dakar te jàpp naa ni ñi fi taxaw. di opposition di wax amul kenn koo xam ni mën na battre le président Macky Sall à Dakar. waaw Barthélémy Dias. man xam man moom candidature yi comme ni nga ko waxee man je soutiens la candidature euh, de la mouvance présidentielle mais surtout de du ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mm. ñun d'habitude suñuy liggéey balaa ñuy tànn dañuy xool profil. dañuy xool CV wu nit ñu gis ni si ñu fi waxagum ni candidat lañ parce que jusqu'à présent Barthélémy Dias moo déclaré wu candidature am ak Abdoulaye Diouf Sarr ñu gis ni actuellement Abdoulaye Diouf Sarr il est conseiller au niveau de la ville de Dakar déjà mi ngi ci ville de Dakar bi mi ngi ci dispositif bi tey jii Barthélémy Dias n'est pas conseiller au niveau de la ville donc loolu tamit c'est un atout boo xam te ne pour mu continuer dina yomb ñu xool parcours am gis bi mu jaaree COUD liggéey bu rafet bi mu fa parce que bokk na ci révolutionné COUD ñu xool bi mu yoree ministère des collectivités territorial boobu la gënoon metti boobu la ñuy doog a indi acte 3 ñu bëri comprendre ñu ko mais bal tàkkul fetal génnul ñëpp comprendre nañu te amul benn problème mu nekk nag koo xam ne ku mën a déglu la ku nangu partagé la ku xam te ni nangu na il est ouvert d'esprit te Dakar loolu la soxla Dakar soxlawuñu maire boo xam te ne dafay xeex wala dafay xuloo wala dafay rajaxe dakaar dafa soxla maire boo xam ne dafay déglu dafay njaboote te Dakar foog naa loolu la mës a am kon ñun tey dañu war a continuer loolu parce que Dakar tey mooy vitrine Sénégal position géographique bu Dakar dafa am solo kon bu ñu fay teg dañ fay teg un leader boo xam te ne dina mën a yaatal dina dal dina teey dina yaru dina am xam-xam dina am mën-mën te dina am expérience looloo tax ñu porter suñu choix ci ki nga xam te ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr commencé nañu liggéey bi te dañ ci gën a sóobu bu baax a baax jàppale ko fas yéene ko teg euh, ci boppu ville de Dakar. bu ñu weesoo foofu fi ñuy jeexalee mooy seen commune bu Wakaam Samba Bathily jàlloo moom moom daanaka mën nañu wax ne moom euh, yàgg na fa lool sax macha allah yàlla na yàlla may gudd fan ak wér gu yaram. Euh, tey li ma lay njëkk a laaj Samba Bathily Diallo xëy na candidat la mais est-ce que tey madame Fall bi nga xam ne mooy deuxième adjointe au est-ce que moom samp na nekk maire Wakaam parce que mosuma gis maire bu jigéen bu nekk tak Wakaam ah. <laughs> que Wakaam amagul maire bu jigéen mais man damay nekk loo koo xamante ni su ma teg ay nit ci kàddu kàddu yooyu du ma ci bëgg a jóg ne woon naa ci Wakaam yaa a peut-être trois ans bi coow li bëree ñi ni dafa bëgg a nekk candidate ñi ni maire bi moom la fa bëgg a teg dem ma ni leen duma candidate ci élection yi di ñëw te kàddu boobu ma waxoon ci kanam wakkaan yépp dama koy sàmm bien que actuellement am na ay opportunité yu ma permetre ma poser sama candidature mais damay respecter sama engagement ak waa wakkaam parce que wakkaam daf ma ñor te wakkaam dama fas yéene liggéeyal leen continuer liggéey ak ñoom te li ñu dese pour ñu liggéey ak waa wakkaam bëri na dañuy doogay tàmbali ak waa wakkaam man soo xoolee sama politique man awma ay militant xam naa dina la jaaxal moi j'ai des amis des parents des alliés yoo xam ne tey ji soo ma fekkoon dooni kii seen leader la ñi ñooy militants yi relation yi ñu am relation de collaboration la ñu am relation de sympathie la ñu am dañuy waxtaan dañuy déggante te su élection jotee ku ci nekk xam naa fi ngay voté te ku ci nekk xam naa ni ngay mënee donc ñu ngi waxtaan suñu biir te itam dinañu participer ci élection 2022 yi. da ngeen am dañuy am candidat ñun candidat bi ñuy jàppale. mooy nekk maire 2022. kan la Samba Bathily Diallo. 2014 bi ñu jàppale woon muy Samba Bathily Diallo moo nekkoon maire moo nekk maire ba tey en exercice 2022 tamit ki ñuy jàppale mooy nekk maire xaw ma moom la xaw ma keneen la parce que ñu ngi waxtaan pareeguñu ñu ngi saytu. pareeguñu te bis buñ ci paree dinañ toog def conférence de presse comme niñ ko defee nii la Abdoulaye Diouf Sarr la ñuy jàppale wax leen la telle personne la ñuy jàppale te boobaa dañ ci am ndam. moom sax actuel bi candidat la xam naa foofu la ñuy pour euh, euh, briguer waat beneen mandat pour mairie bu Wakaam moom xam naa moom moo moo moo leen jaaxal bu fekkee ne dañuy tànn keneen tam dina leen jaaxal lool <laughs> Samba Bathily rek euh, mi ngi def ay réunion ay ndaje ay waxtaan mais dañu yëg ne yow réunion yooyu bokkoo ci feeñoo ci lu waral loolu. waa xam nga nit moom man par principe xam nga dañuy wax naan am na ñoo xam dañu naan bëgguñu politique boo xam te ni da ngay absenté am na ñoo xam lu ñu leen yëgal lu ñu leen yëgalul ñu dem ci mais man du ma dem ci lu luñ ma yëgalul loo gis ma dem ci rek day fekk ñu yëgal ma ci fekk ñu waxtaan ci fekk ma am ci kàddu fekk ma am ci xalaat loo gis tamit demuma ci te justifié wu ma li tax demuma ci day fekk ni yëgaluñ ma ci waxuñu ma ci boolewuñu ci ñun wakaam daf ñu ñor fas yéene nekk ci dernier rang wu dara ci wakaam lépp luy soxal wakaam wala képp ku bëgg a développer wakaam dañu ciy dugg dañ ciy taq rip taxaw ci wane ci suñu féete indi ci suñu xam-xam indi ci suñu mën-mën. parce que non ndaje yi nag dama koy dégg nii rek comme ni ko nit di déggee donc euh, convier wuñ ma ci demuma ci aussi mm-hmm. am na ñu ma jege ñoo xam te ne ñu ngi leen ci convier. ñoom it ñi ngi dem mais du tere rek bis bu choix jotee ci programme ci ki ñu jàpp ni moo gën ci wakaam dinañ ko choisir te dinañ ci taxaw dinañ ci participer aussi sur le plan intellectuel dinañ ci participer sur le plan financier dinañ ci participer sur le plan physique lépp lu mu laaj incha allah dañ koy def ba wakaam am ndam incha allah foog naa ne lépp lu amoon importance wax nañ ko ci biir euh, waxtaan bi alors euh, nan ngay tàggatoo askanu Sénégal askanu Wakaam rendez-vous bi incha allah rabbi merci beaucoup Pape Maguette donc yow laay njëkk a tàggu di tàgguwaale waa Sénégal di am mbégte trop euh, ci jotaay bi am na solo di tàggu sénégalais yépp di tàggu Dakar waa yépp di tàggu Wakaam waa yépp di wax jigéen ñi surtout ak jeunes yi bu ñu nangu xaar ba ñu fal nit ba pare surtout ci localité yi nga naan defal nañ ma li waruñu def dama bëgg ñuy organiser wu comme ñu niñ koy defee tënk seen ay programme candidat bu ñëw ñu am ak moom benn pacte boo xam te ne moo leen lié pacte de développement pacte de cadre de vie su ko defee su doxalee tuuti dinañ xam ndax yoon bi ñu àndoon ak moom mu ngi ciy dem wala demu ci su su su su fekkee mu ngi ciy dem ñu continuer jàppale ko su fekkee demu ci ñu préparé wu il faut que les jeunes et les femmes nekk fi nga xamante ne foofu la ñuy décider foofu la ñuy waxee li nga xamante ni mooy euh, suqali gox yi tànnal sa maire liggéey sa gox loolu moo nekkoon suñu slogan wu 2014 loolu lay dellu si tànnal sa maire liggéey sa gox c'est que man duma comprendre parfois da ngay gis tey un opposant mu ànd ak ay nit ñu koy jàppale ci sécurité am ñu ne ñi ay agent de sécurité lañ mais su àndee mais yow dóore segam yow un candidat un mm. candidat koo xam te ne nee nga yow da nga bëgg a jiite Sénégal yaa mën ni dóor nga koo xam te ne mat na la papa ci Sénégal ak culture bi ñu am mm. nga ni yow kooku dóor nga ko summi nga yëreem te nga ni kooku war na la mat papa. nga ni candidat nga. kon est-ce que du Sonko ci boppam moom nervi la. le plus grand nervi du Sénégal c'est Ousmane Sonko. <laughs> mooy nervi bi gën a mag taxaw di ko assumer. Hmm. ndax Sénégal dafa am yoon. gis nit même su la saagawee waru la saaga demal ci yoon su la dóoroon sax waru la dóor demal ci yoon. dafa am lu ñu baaxoo loo xam suñu culture la mais dafa am leneen loo xam ne dañ ko tëgg ci ni ñuy doxalee mooy les lois. nit su la tooñee demal ci yoon nit du fajal boppam bu fekkoon ku nekk da ngay fajal boppam kon dañuy nekk ci Sénégal boo xam ne jungle la lu ku mën sa morom dóor bu la neexee nga ne daf ma tooñ ñu koy ñaan mu ressaisir mu dellu si waat parce que lu metti metti jeune la am na nu mu doon comporté woo ñun ànd ak moom day day day day simple parce que il est jeune bien que le président Macky Sall il est jeune il a fait mais tey jii dafa am yenn comportement yoo xam soo ko amee. am benn arrogance benn fug boo xam ne soo ko amee am benn haine boo xam ne soo ko amee si ñi nga xam te ne dañu nekk ci ay parti politique ñun duñu mën a ànd ak yow parce que dañu am formation politique ñun dañu am formation libérale donc dañu gëm ni libéralisme social moo war a doxal Sénégal mooy yaatal mooy waxtaan mooy dal mais surtout libéralisme des valeurs mooy respecter mag respecter kilifa.